am murit moom ab taalibe bi mu war a def mooy nu ko sëñ bi bëgg sama waajur dafa ma daan wax ne si ngeen surtout daan wax ne ñetti yii de ku koy ku koy saxoo doo juum te kenn du la jëlee fanga nga mooy sëñ bee ma ko wax ak sëñ bee ko def sëñ bee ma ko def loo sëñ bee ko waaw sëñ bee ko wax sëñ bee ko def moo ma ko def loo ana looy def nii sëñ bee ma ko def loo yow kooku day nekkatul yow yaa bu amee looy waxati kon ca sëñ ba ngay dem léegi ñun nag kon léegi suñ programme bépp li mu war a doon mooy sëñ am surtout gis naa ci fan yëpp keroog bi ko sëñ bi waxee ba wax ko déey ko la mu ko déey ba léegi amutu benn sax saa suñu nos ak wax dinaan lu ngeen mën a sosal lu mën a xew nañ fexe ba sëñ bi amee ko ni ko bëggee loolu rek mooy yitte ji damay wax ne nag euh, am na tuuti ay seetlu yu ma ci seetlu mooy bisub àllarba bi jot naa ne am na lu xewoon loo xam ne àllarba la xewoon di dikk waaye dama gis sëriñ bi bind benn xasida boo xam ne da ciy da koo koo tuddee bi yow mi arbuhaay te sëriñ bi Sëriñ wax na ne bokk na ci li wund bi te ña ko fekk ginnaaw sëriñ bi moom ba muy jóge njaareem di ñëw jundullaahi xaaliboon na ñoo ko mu muxarraboon yi ànd ak moom mm-hmm. bi mu agsee mu tànn ci ñam soxla wetti li koog ñoom ñi ko des mu dekk loolu leen booba sëñ bi àgg na foofu mm-hmm. ginnaaw nag ñun fekk wuñ ñooña waaye ñu ngi dund sëriñ bi te gën fa suñu yéen ñu gën ñoo bëgg sëriñ bi jeexiti gunge googee ñun ñu def jeexiti gàttandu mm-hmm. wis baa kuy ñëw teewlu mel ni sëñ bi dafa war a ñëwaat nga bokk ci ñu ko war a gàttandu yaakaar naa ku ko waajalee noonu doo fa indaale yi siñ gànna doon wax beneen bi ci sit mooy sëñ bi bu fekkente woon ne euh, day santaane lii mu santaane sant na ko ku mat a sant ndax dañuy wax ne booy def lu dara da koy seet ka ko man nga def loo ko bu jëlee bis bii jiital ci suñu am sutum suñu soxay damay jàpp ne bu doon am matt lay xar xarlu day seet ñu gën a mën a xar matt mu jiital leen ca xaru matt ma ndax ñoo gën a xam yoonu kon bu jëlee siñu am sutu jiital ko ci jël is bu taraxee ci njiital siñ yuusu toftal ci ñu ànd damay jàpp ne fokk ni ko suñ bëggee dañ koy amee noonu léegi ñu ñu ko bëggee ñun nañ xool ni ko suñ bi bëggee mu amee ko ni ndax suñu bëgg ni ñu ko amee niñ amee ko ni ñu ko bëggee ñun mi ngi dugg ci biir ni ko ni ko suñ bi bëggee te jundulaahi xaali yooyu ma tudd léegi damaa gis ci bi yomi arbuha yi googu sëñ bi xasida googu sëñ bi def damaa gis mu bind ca ne euh, malakani jundiya xindallaahi am faneen fu mu waxaat ni ilaya qaada malakani xubbiya jundallaahi la wax siran kafaani kulla jaanin waxaat ni ilaya qaada ubbiya ahlu badri wa xismatan eh, wa xismatan kulli irtifaaul eh, xadri kon day mel ne bu fekkente ne jundu lay xaali boone yooyu ñoo àndoon ak moom bisub bis bisub àllarba sëñ bi woote waat lam ca dàkk moom ni ko sëñ Gana waxee moom moo xam li mu ñu ciy moo war a nekk suñu yitte te dégg naa wax na ne euh, nañ delluwaat ci Sëñ Tuubaa delluwaat gi ci Sëñ nag gisut lu ci gën a gaaw jaare ko ci xasida yi noonu la ko waxe ma gis ne nag xasida yi si sutu surtout liggéey na ci liggéey boo xam ne damay wax ne xew-xew yi yi xew ci jamono moo xew ñu koy gis nii waaye yàgg na ci ndax sëriñ bi si am surtout ba mu nekk suñu sooy bu di jàng alxuraan ak xam-xam booba la tàmbali woon na dund xasida ak di ko bind ku ne xam ne la ko suñu songe bu waxoon dénk ko loolu jurul wax waaye daa daa tàmm daa tàmm xasida tàmm dundal xasida ndax koo xam ne yow ci ngay xëy ci ngay gon sa liggéey bépp moom la bés bu set mi ngi organiser ay nit guddi ajuma gu jot am na bis yu ñuy def yoo xam ne guddi ajuma gu jot du jël dañ koy def kooku jot jot naa ne miin na lii lool benn njumte du ci am yaakaar naa ndax da koo miin te it da koo jox war ma joo xam ne bi ko bi ñëwee ci sëñ bi la ko sëñ bi dee sax moom ji mu ko leeral waaye nee na daal nii ma gisee sëñ bi waxee daal fokk ñu ñu jaajuwaat ne ko sëñ bi bëggee ñu defe ko ni te moom ginnaaw xasida la doon dund di ci yare def ci loo xam ne ñëpp ràññ ñëpp xam nañ ci ab liggéeyam ndax booy xool euh, jamono yi mu nekk Sëñ Suwaybu bu kafteeru café la daan lijjanti ci guddi ajuma xëy ci xëy ci ba jant bi so kafteelu kafe boobu du man a so nga xam ne da koy jaral wut ak kaamil ñëw daare kaamil gii jaay ko fi wala mu wecc wala mu ñëw daare kaamil gii euh, ñaan fukki kaamil ñu jox ko ko mu dem wecc ko ko ngir mën a am ñaar fukki dërëm yu mu mën a defare kafteeru café kon bu demee ba si yooyu wër ko rek mérite bii si ñu amadoon wax de daal di ñëw li sëñ euh, Alioune Diop waxoon day daal di ñëw moom sëñ moom muy daal muy daal moo tax liggéey bu réy boobu nga xam ne def na ko ci nag di ko bind ba noppi wëlbati ko di ko jàng ak jàngale ak ak di ci tege ci aw yoon nekk ci sayxu tarbiya nekk nekk ci sayxu tasfiya te loolu ñun ñi jàq soog moom xam nañ ci dara baraana fii may waxee yoon yi ku su ku rusa sol pantalon te si am sut tax yére yére yu koy xeebe te si am sutoo tax baraana ku xamutoon dara ci aw bayitu xasit xasida ci si am sutoo moo ne mësu koo gis fan yii rek gis naa ko koo xam ne yéem na ma loolu ndax daa bind mbind mu rafet mu ne ma man mosumaa gis Serigne Amsatou xaw ma ko waaye mbind mii dama koo bind ba mu rafet lool ci man sama xel dem ci moom kon kooku am na ci ab liggéey bu rëy bu bu mu ci def mhm. kon kon sëñ bi li tax mu sant ko ko moom xam na ko li tax mu sant ko ko xam na ko bu baax a baax a baax a baax ndax ku xam bisub xasida bee nga xam ne moom lay taxawal tam yàgg lool nga xam ne ñaar fukki kuréel yi nga wax ak juróom-ñett soo fa demoon ca bisu xasida ba da nga ko fekk ñaar fukki waañ ak du jalibatu maraxib waañ wu nekk nga gis téeméeri nit téeméeri mbana di ko di ko di ko togg jot naa ne kooku ku sant lu mel nii miin na ko miinin woo xam ne jot naa ne ni ko suñ bëgg rek la koy mën a su ko defee nag euh, li nga xam ne moo ci mat a xam tamat a bàyyi xel mooy ki ñëpp di wër ci moom lañ jëm mm-hmm. loolu moo mat a baay xel ki ñëpp di wër ci moom lañ jëm ñu wa bàyyi xel xorom ji bu baax a baax a baax a baax ci waggar ko ba noppi it ahlu xasida la ñuy wax ahlu xasida mooy lan mooy ñi ñi ne ci kanam te di ci yëngu ñu ràññee leen ci waaye suñ tubaa si si Muntaxa murit yëpp la wax képp koo xam ne yaa nga toog fee naan gaay seen bis bi yow moom sax murit day daal des ndax ki nga ne ki nga ne mooy yilif ñëpp moo wax ne ñëpp ñëw amul bu ma damay xëy damay xëy waaye su ma teelee wàcc déedéet kon kuréelu xasida yëpp yëpp yëpp noonu ko suñu Alioune Diop waxee ni ñu nosoo ba ci bitim réew fi may waxee yow nii ñoom fi ne nii fi ne nii bi sëñ bi joxe ndigal li benn coup téléphone képp lijjanti na lépp ndax daa fekkoon suñu am surtout nos ko nosu yi woo xam ne bu woowee kenn jur mu woowaat keneen ñëpp ñu daal di benn buum la fi ne Ahlu Xasida nii kuréel bii mel nga xam ne nii ñu nii ñu bokkee nii kuréel bi nga xam ne bu kii dee bu kii fobee tànkam ko ci moroomam du yëg ne teg na ko te bu doon jullee mu xaw koo wan wan ne ko maa ngi lay yàqal sa julli noonu ñu xajantoo ci seen biir noonu lañ xajante ci seen xol moo tax lépp lu ñu leen defloo day day nos dañoo àndandoo ba nekk benn ci biir noonu bayit ji tegaloo di neexandoo noonu lañ noonu lañ mel moo tax sëriñ bi maanaam dajale gi day day yomb fi boo demee Europe bitim réew fépp fu mu ci mën di doon waxuma la ñuy ànd ak sëriñ bi ak yëg bis bi waaye fi may waxee yooyu ña ngay organiser ña ca mën a ñëw ñëw ña ca mënta ñëw ña ngi ko fas yéene buñ ñee en fii rek ñu ne rabbana alamin foofu maa la wax lii ñoom noonu lañ ci loolu lañ nekk fi may waxee yoon yi ko nos loolu nag nosu liggéey bu rëy bi biñ ci def ba ba loolu man a am loolu dama jàpp ne moom la suñu Muntaxaa yëg ci saa si moom itam ba tax mu bëgg noonu def lii ci baatinam ci baatinam te xasida dafa dafa am lu ci am solo lu ci mat a bàyyi xel ndax damay jàpp ne yenn bayit rek bu suñu Muntaxaa joxe woon wenn bayit képp ne dama bëgg bu ngeen dikkee dee ko di ko baamu damay jàpp ne loola rek doy nañu sëkk sëkk sëkk ndax li Sëñ Tuubaa wax ci xasida yi ak lim ci daj ci xasida yi nga xam ne Sëñ Tuubaa rek ay jàmbaar moom rek ay jàmbaar ndax sëñ bi dañ bàyyi xel ne ba mu koy bind yaakaar naa maam Cerno mas na cee am bis boo xam ne xasida yi yëngal na ko ba sëñ bi ràññiku ci ràññiku ko ci kanamam mu ne ko xanaa li ñuy wax daa neex ci yow mu ne ko waaw neex na si mu ne ko ana nu mu neexe mu ne ko dama xamut ñu koy jàng la damaa xamut wayin wi la damaa xamul ba xam xalima ku ko doon yenkee wala am déet wala daaji mi sëñ bi ne ko yëpp a ngi ci biir de waaye fa ma ko doon lii ñu wax ba mu yëngal la day fa ma ko doon waxe keneen ku fa nekkoon ku dul man da nga fas yéene wax leneen lu dul lii. barke Ahmadul Xadim tamit dëgg. leneen lu la ngay ngay xool waaye waaye doo wax lu lu dul lii léegi nag xasida yooyee ginnaaw ba ko fa ba fa sëñ ba nekkee di ko waxee noona yaay matt ngay matt yaay gajje ngay gajj la muy yëg ma ngi koy yëg te teewul xasida yooyu moo gën a baax gën a rafet gën a kawee ci bi mu nekkee Touba di naan kafe si mun taxaa ne si si Cheikh Mamadou Mourtala moo ko seere ci suñ Touba mu ne li ko yéem ci suñ Touba de ak li moom di yi nga xam ne moom la defoon ci ci bi mu dem xasida yooyu li ñuy baax baax baax day mel ne yem defee foofee nga xam ne ci xat-xat lañ jàpp lañ ko jàppe woon yooyaa gën a baax gën a kawee gën a gën a neex gën a neex a jàpp kon day mel ne kooku kon jom akoo fit kuñ ko jiñ ko dul moom dañ lay nax ical tawalifiya bil muxtaari junnata kulli qaari in xannaari wund na bis bi loolu rek jar na daw ñëw bu ci sëñ bi waxutoon yooyu yëpp itam tam sëñ bi joxe ndigal jar na ñëw wa ical tawalifiya bil muxtaari junnata kulli qaari in xannaari waxuma nag ijales bila afatin wala kadrin wala xururin wala sidrajin yooyu yëpp moom waxee ndax xasida Sëñ Tuubaa moom ni koy xaanee xasida keneen moom day jël engagement

ndax sëñ Amsatu Jaxate dafa wax ne Sëñ Tuubaa da ko ne xam nga lu tax ma am ci sama borom lu kenn amuta mu ne ko Mbàkke ku dul yow xamu ko mu ne ko sama bon sama mu wax la ko mu topp si mu ne ko sama borom daf maa woon li ñuy ñaan bu noppi wax ma ni ñu koy ñaane daan ne ko sama xalima ñaw lool sama daa far samay bët ne jaar te tayeelum dégg nga da ko ne xam nga loo tax ma am sama borom lu kenn amut mu ne ko bëgg nañ koo xam ne mbàkki ku yow xam mu ne ko sama borom li ñuy ñaan ba noppi ne ma ñaan sama xalima ñaw lool sama daafar samay bët na jar te tayeelu ma mu ne ko aw lay laay bañ ëllëg sa sa sa sa digg ak ñi ñi ñi ñi ñu ko bokkal suñ ma nee ko foo lu tax nga may li amut danga ko ko mu ne ma ma ne leen moo ma ko ñaan kon loo tax mu ne mu sax naan damaa may a may a may a may may ba far ma may sax lu ma ko laajut xam nga atayta ni jamia doona sala bi am na waaye wali tuqoodu su la waxta talib mooy la ne ci ruq ba te gisuma ko te su ma ko gisoon ñaan ko te lu ñu ñaan la mu ñoddi ko ne ko lii ci nit ñi ñaan la bo mu ñaanaa def moo tax mu dem ba naan ah, atayta ni su lii wa maa lam asali ak li ma la laajut moo tax ba muy kañ boromam ba mu ko ne waxatta lii min ko sulan lu mu ko ci tegal faaxa masalati dëgg la moo tax suñu borom ne ko am nga liggéey mu ne ko lu mu doon mu ne ko falaaka sukriya yow waxabu yàlla mm-hmm. te nag ci ay ci ay dafa ko woon ci am naflaay ci ñun si si muntaxaa ci am naflaay la woo loolu mat a bàyyi xel si muntaxaa ci naflaay la ñu woo te sëñ bi nekkutoon ci am naflaay te xasida yi li muy bari bari bari bari amu ci genn goo xam ne sëñ bi daa naan café kaasu attaaya rek wala mu naan kaasu café sabar ne alma bind fi xasida déedéet xasida gu nekk dañ ko ne xasida sàngam sa borom nga dëkku ci bëxur sàngam ci heure sàngam su matee fukki minute lañ la may nga def ci xasida googu su matee fukki minute ak benn dañuy jaayante gi du ay caaxaan te ne tamit ne ba pare boole ko yem koy boole ba ne ko nee ko doone oh te dem na ci géej gi ba ñëw fu mu ne sami allahu liman hamide kenn dina rabbana wala këram moom képp donc aw moo ko moo ko doon te teewul ñu ne ko saw làmmiñ foo toll day jàng xasida day jàng alxuraan te foo toll sab loxo day bind te bu loxo bi bu loxo bi jum balaa mi ñu jum loolu bas ne ko dégg sëñ yëfi nit mu bind na yedd yi taqutu wal loo yedloo walay sa yalxu li jihaati xid sama làmmiñ a ngi jàng alxuraan sama xalimaa sama xalimaa ngi bind xasida làmmiñ ñu jum xalima ko di kon loolu du ay caaxaan kon li ñu suñu mun taxawoo dañ ko war a xam wépp te bàyyi ko xel te xam lim ñu woowee lu mu doon ba noppi it jaayante gi mu jaayante rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax xasida yi daa am fu mu àgg sëriñ bi am fu mu àgg boroomam sëñ Ahmadu wax na ko léegi sëñ euh, Gànna wax ko ci muñ loo gi mi muñ loo yonente bi sallallahu alayhi wa ti te xoolal yebbu sumti daahi jumlatan xaasa nabi la leen boole ko te bassamal muxtaaru lil jinaasi waaye mun su badaa mun su badaa bu xay bu kaw xanaasi maanaam saa saasu sa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga yuux te ñun sëñ bi sëñ Tuubaa moo ñu garantir suñ lépp ndax mboolem lu ñu wut defal nañ ñu ko ci xasida yi ba noppi kon lenn ndigal lu ñu sëñ Tuubaa jox ñu war koo def war naa yomb ndax loolu mu wax ne bool ñu ca ne ne ne dama jëlile euh, asaluka al bil muxtaar li man yeloosu bi sa sitari waaye suñ borom moo ko ne demal ca ridwaan ma maa ngi koy ko maa ngi yebal ridwaan mu ñëw ngeen lonkoo ay baaram yéen ñaar lu mu la wax na nga ko def suñ tubaab bind ne ridwaanun alqaasinu lil jinaani xat saafaxal xaddiima bil banaani ñun ñun suñ bopp sax yemuñu ciy loxo de yemuñu ciy loxo de waaye ña ko naan ah dañuy bañ Malick di ñuy jaawaleeg Ridwaan de da nga ak moom mu daal di bindaatu bayit ak Malick ne malikuhum alqaasinu lin neeraani laa yantahi nahwi wala jiiraani def leen li ma leen li ma leen sant rek te bàyyi leen léegi nag ñoom li suñ yitte mooy sëñ bi dañuy digal dara ba noppi am lum ñu dig ñuy jaawale dig ak digal sëñ mu taxaa dañu bu ngeen defee nangam ba noppi nag wee yéen a ko moom ngeen ko jël ngeen barkeele ko ñu dem nag yéem nag wi ci na nagu yarlaak ku ko doon séddale ndax ñaata saam lay war a doon te bayeeguñ sas wi te it ñoom murid yëpp xam ne def li Sëñ Muntaxa digle du kiimaan ci ñun ndax ñoo ko jaayante dëgg la lu waaye am jox ko Sëñ Muntaxa te defe ko ni mu ko bëggee du kiimaan ndax ñoo jaayante te kenn ku nekk bu sa xel demee ci la nga bàyyi sa kër xam ne du du du kiimaan loolu rek moo ci moo ci moo ci moo ci am solo li ci desaat tama tama tama bëgg ko cee waxaat mooy sëñ bi dafa wax ne li mhm. tàmbalee ci jumaa ji ba daaru xudóos di tàmbalee ci jumaa ji ba mi minam xam nga nu ko waxee dane fu mënta toog nañ ko xajal mooy daa war a xat daa war a xat dëgg la fu mënta toog nañ ko xajal dëgg la te ginnaaw sëñ Tuubaa moom moo jaayante woon moo jaayante talam jaayante rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na fu mu ne lam yab xa bay ni ya wa bay na rabbi am na feneen ne lam yab xa bay ni ya wa bay na muntaxa ba ci daajim jaayante woon sax ne boo agsee ci lu war a xong da koo war a xongal àgg na ci foo xam ne ba ba waree xongal te xongut daa dagg yaramam jël daa ji xongal ko ci lu wér la te moo bind wax ne maa ko bind dafa ne bajjale nii bi annahu lam yaktuba isma muhammadin mata ma kataba bi xayri ahmara min al midaadi salaax alayhi waahibul widaadi allahu akbar suñ lu mu def bind na kon bu fekkente ne moom da jaraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaraloon la ko jël deretam di ko binde moom bu ñu suñ Muntaxa woo woowee te ah, jàng alxuraan te suñ borom boo demee ci alxuraan boo demee ci boo demee ci alxuraan suñ borom dafay wax lu baree bari ci ku woo lu lay doyee ku la ne kaay am lu mu lay ba mu ba mu ne adduhoonii ma moo leen ba mu am na lu mu ca teg mooy astajib lakum ba mu ne fa inni xaribun itam ujibu isaa daa wata daa isaa dahaani laa ba mu ne yaa xaw mën a ajibu daahi lay wa aminu bihi lu mu ca teg yàqu lu kom sunoo bukum kon képp ku la woo rek am na lu mu lay doyee boo ñëwee te ñun yàgg nañu Sëñ Tuubaa yàgg nañoo woote xam nañ lam ñuy doyee lam lay lam ñuy doyee nag mooy sëñ gàll mii damay xool muuñ ci la ko sëñ bi jox waaye mënu ko leeral mayit mu am nu ma muuñe mu xam ne am na lu ma sëñ bi jox te mënu ma ko leeral ñun ñaan ñëpp ñu ànd di muñ ca loola te kenn mënu ta leeral li sëñ bi li sëñ bi joxe lu mu doon loolu rek mooy Sëñ Tuubaa kon nañu fexe ba ñëpp ñooy pastif pas-pas mu tax warri kan maanaam nañ ñëpp jublu penk sellal fas yéenee teewlu suñ Tuubaa loolu la Muntaxa wax teewlu suñ maa ah, salaamin euh, euh, nu ko nu ko suñ bi waxee salli salaatan tam la samaa wal arda yaa man xaadal yi namaa maa salaamin yartaqi lil xarsi wa yamlawul kursi ya yaasal farsi wa yudxilaanil bisra fi xalbi nabi basiri kulli aqrabin wàññi sëñ bi xoolal woowu bayit ni mu feese nga tëjee ko nag xadayta bi xaq di lépp dugg ci biir wa tasawufi wal fiqi xiyaali bi sikkiri ma salaati wal ñun ba ñu Sëñ Tuubaa woowee woon lenn lu lu mënoon doon dañ koy wuy ji ndax li may mujj sama kàddu sama waajur moo ma ko seex ci Cheikh Ibrahima Fall dane sëñ bi da koo yónniwul mattum jalamaan lu sëñ bi digle man naa ne leneen mu dem ci xur wa dagg matt ma ba noppi ñëw teg ko ci ci cawtanuk laxat eh, caxet lawtanuk caxet ba mu takkee say wa ko say daa dëgër bu doon nit da koy wàññi bu doon nit loolu mooy yëfi nit ko war a wàññi waaye neen daa wax ak say wa ne ko ay waay waaw waaw nit ak mbokkam nekk ak mbokkam neen du dem dafi bàyyi mbokkam day imaan xool ma ngay jàngale day imaan te imaan neen du dem mukk dafi bàyyi lislaam duggaat ci xur yokkaat lak yokkaat yokkaat takkoon nga taxanaat lu ne toll teg ci te moo ne bi ko yëkkatee daa diis bi mu naawaat ca sawi sawi lànk mu ne xeexee waaw moom de nee na duñ dem bàyyi fi seen mbokk imaan ak lislaam nee duñ dem mukk di fi bàyyi lislaam neex saan di gooj ci xur wi taxanaat lu ñu takk lu ñu toll teg ba mu ko tekki ba mu dëgër daa taxaw wax ak say am na fu Sëñ Tuubaa bind ne al imaanu wal islaamu wal quraanu wal xadiisu lii kon moom moo ko moom nee na sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall daa jo xam ne sax ne ko ki moom tam moom moom moo ma leen yónni ba mu ko ne cas daa mel ne xob mu tëkk jox ko sëriñ bi kon lu sëriñ bi mën naa ne rek ma wax